ci borom xam-xam yu wuute ci ay thèmes yu wuute bu ci noppee itam ñëw fii nga xam moo di yokk bi ñu bokk ñi nga xam ne mooy taalibe Sëriñ Tuubaa jullit yëpp ñu ndogoondoo mu ci faral di dalal nag ay kuréel yu fasante ko ci dëkk bi tey jii nag ñu dalaloon fi honorable Serigne Cheikh Abdou euh, Mbacké euh, Bara Dolly ñu xam ko bu baax ci dëkk bi ràññee ko itam ci social social ci euh, jullit ñi rawat na ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi waaye rawatee na ci fi nga xam moo di jumaay Tuubaa rawat na nag mu lëkkalu ceeg daayira Muxaddamatul Xidma ku ne ci ñoom mu xam ko ràññee ko bu baax euh, saq ak moom euh, kóllëre yoo xam ne yàgg la tey jii nag mu ñëwoon nemmeeku si leen euh, mën nañu wax ne ñëwoon tey xëj na xool loo xam ne te jombul bu demee assemblée jombul am na lool yell na fii jaadu na fii donte lu ne fi jaadu lu ne fi yel waaye xam na ko mën na dem plaider foofu comme ni nga xam ne la koy defale dëkk bi defale ko yoonu murit incha allah suñu Cheikh yaakaar naa ñëw nga eh, am na loo bari loo foo foo jot a dugg jëmbul boo fa daan dugg itam ni nga fi duggee tey wuute nag noonu jëmbul am na yoo xam ne gis nga ko fii jàppoon nga ne sax amu fi eh, waaye Sëñ Tuubaa am na lépp nga gis ko am lu mu def sa xol nga fekkee waxtaan wi fekkee mbooloo mi koy déglu dañu koy déglu ci biti ñoo ëpp ginnaaw gi nga ñëw fii gis mbooloo mu bëree bëree bari ñoo xamante ni ku ne la ngay ndogoo bu doon sa kër itam mën naa am doo ko amee noonu yan kàddu nga ciy wax. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi sant yàlla bu baax di sant Cheikh Bamba Khadim Rasoul di ñaan Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér di sant bu baax a baax kuréel daayira Moukhaddamatoul ma ci liggéey bu am solo bi nga xam ñu ngi koy def ñëw fan fi tey nag ànd ak délégation bi muy samay mbokk ñoom ñëpp ñëwoon tey seet si liggéey bi fekk si waxtaan wi bi ñëwee li njëkk a déglu ci waxtaan mi dafa am solo mooy fi jamono toll ak jigéen cër bi ñu ko war a jox ak bi ko lislaam joxe ak nan la war a def pour mën a bokk société bi ak liggéey ak buy liggéey na la mën a mën a sàmme boppam ba nga xamante ne li ko borom wax digal ko dana ko def mais li mu war a digganteem ak borom këram dana ko def ak digganteem ak njabootam muy waxtaan woo xamante ne ñu ngi koy rafetlu bu baax bi noppee tamit ñu ànd ak daayira eh, Moukhaddamatoul Khidma bi wër liggéey bi comme ni nga ko waxee liggéey bi man maa ngi doog ñëw pour gis li si biir parce que dama daa ñëw rek eh, en tant que doomu dëkk bi taale bi sëriñ bi xam ni fii ngeen nekk dama fa war a ñëw nekk fi ànd ak yéen summiku bu ma ko mul ngeen nekk fi yi ma yàlla wërsëgaleel ci sëñ Tuubaa tax ma jël ko dugal ko ci askan wi jox leen ko waaye musuma nag xalaat ni deme na ni moo tax damay sant yàlla bu baax a baax di sant Cheikh Bamba di leen gërëm ndax bi ma xoolee ñi nga xam ñoo fi ñëw di fi ndogo sama xel dafa dem ci maddatu mu nawara ak makkatal mu karama ndax uh, ku ne xam na ni uh, sa koor daanaa fa dem wala daa demee dafa def leetu xàddar gi fukki fan yu mujj yi ko doon defee comme nii nga xamante ni noonu la si jumaa ji noonu la def jumaa yi uh, yonte bi noonu la def tamit si kaaba gi kon jàpp naa ni li Serigne Touba moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn nattluwu ko yéen ñi nga xam yéen fi nekk tamit ak ñi ne foofu di ko joxe euh, benn lan ñu wër tamit li commencé wetu ko Serigne Saliou ñu xool mbooloo mi ne foofu muy góor ak ay jigéen ngeen ber leen comme lu nga lislaam diglee ñu bañ a jaxasoo ma jóge fi wër fi nga xamante ni moo jëm ci mbirum faj mi paj mi nga xam fii leen def jigéen ñi def ñu góor ñi nga xamante ni gis naa ni loolu day lu am solo parce que wér gu dafa am solo ak dëkk bi ni mu demee ak fi nga xamante ni mooy jumaa ji mbooloo mu fi daje ngeen xalaat xalaat bu am solo lu jël maanaam matériel bu toll nañ si ay médicament di leen ko def di leen faj gratuite loolu jàpp naa ne képp koo xamante ni ñëwoo war nga fi ñëw ku fi ñëw tamit sa xel doon tooy ba lépp loo fi doon benn nga def fi fukkam man de fas yéene naa ko fas yéene naa incha allah ala ji ma Serigne Touba jox dama jaayante woon ak moom lu ko loo ma jox dinaa ko def si askan wi dinaa gën a farlu gën a góorgóorlu ba duma def lépp de xëy na bëgg naa ko waaye dinaa def incha allah soixante dix pour cent yi ci li nga xam moom lañuy jëfandikoo chaque année bu neexee yàlla parce que nag ku fi def lu nekk rek sa bopp nga ko defal te yaakaar naa ne loolu man euh, wax naa ko man àll Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa moom moom. Euh, dama koy wax ñëpp di gis ñëpp di ko dégg te loolu lay doxee parce que dama ko jaayante woon a sëriñ bi bu ma tëddee guddi jaayante sëriñ bi may ma li ma may bu ma ko deful du ma gor. loolu moo war a sama taxawaay fii gis naa tamit pour bi nga xamante ni moo leen fi def muy pour bu am solo ma gis leen fi yàgg lakk ni mu ni mu ni mu amee solo ak différence yi nga xamante ni moom lañ def mu leeral yëpp ñu ngi fi nga xool maanaam matériel bi nga xool ni ñu ko organiser en tout cas fii daal wax dëgg yàlla gàcce ngalaama tey ñi fi ñëw ñëpp ànd ak ñun nga xam suñuy suñuy mbokk lan ñu ne suñu xar ñu yëngatu si mbirum àddina lépp ngir war maay dëkk bi xam na ne li nekk fii bu ñu demee dañ si gën a waxtaan xam ni lépp loo xamante daal dugaloon nañ seen loxo danañ gën a góorgóorluwaat ngir gën leen jàppale ci liggéey bi di woo nag ñi nga xamante ñooy waa dëkk bi parce que man doo nga nekkuma fi député maa ngi woo député yëpp ñu ñëw fas yéene liggéey ci liggéey Serigne Touba parce que Serigne Touba kenn du ko liggéeyal ba ne wàcc la du ma rëcc benn yoon lu may défendre Serigne Touba parce que fu ma àgg moom fa àggal kon ñëpp laay woo ñu ñëw jàpp si jàpp leen ba nga xamante ni tey li ngeen war def yëpp da ngeen ko matal ndax ku bàyyi sa yitte bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot boo xëyee 7 heures fi ngay nekk ba 21 heures bañ julli gee ba nopp nga delluwaat kooku yaakaar naa ñun ñi nga xamante ni sëñ bi ñun yàlla moo ñu jagal may ñu lu ñu may mais dañ leen war a jàppale ndax li ngeen def ni Sëñ Tuubaa ngeen ko defal ñun nag bu fekkente àll Sëñ Tuubaa la war nañ si mën a participer di si woo état aussi di si woo képp koo xam ne ban volontaire nga ne fi ñu xam ni bi dëkkub sëriñ bi la ci ngeen di wéy te li ngeen def lépp ndigal tax ngeen di ko def yàlla na ngeen si topp ngërëma sëriñ Touba ñun ñi nga xamante ni ñoo si àndandoog yëpp ñu bokk si am ngërëma sëriñ Touba sëñ bi yàgg fi te wér ngeen yàgg ko taxawu Sénégal jëm si kanam parce que jàmm rek moo xaj si réew mi ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm leen sant baax di leen gërëm sa war jërëjëf asalaamaaleykum yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi